baax mbokki internet yi nga xamante ni di ngeen a taamu sunugal 24 point net euh, di fi xibaaroo ñu ngi leen di euh, gërëm bu baax a baax ci qualité gi en tout waaye tamit euh, di am mbégte di jano ak docteur Abdoulaye Daw Abdoulaye Diallo ñu gën ko xam ci docteur Abdoulaye Diallo mu Serigne Touba borom cabinet njaddir moom la ñu fekk si tey jii ci këram fas yéene séq ak moom. waxtaan boo xam ne si ni wàllum faj muy naturopathie bi muy yëngatu di ci def ay résultats yu am solo eh, dina ñëw ci waxtaanee loole waaye tamit dinañ waxtaanee lépp lu nga xamante ni actualité mu soxal réew mi moom aussi mu am euh, son mois à donc euh, docteur ñu ngi lay dalal bu baax a baax euh, ci suñu émission ñu bàyyi la nga daal di nuyoo laata ñuy jàll ci waxtaan bi. di la fay sama sëriñ Mahfouz di nuyu moom bi nga àndal. di nuyu topp borom bopp bu rëy kontaan ci gisaat la ndaxte yow royukaay nga jeune bu gëm boppam nga jeune bu am diine nga jeune bu calme nga jeune bu serein nga xam lépp te noppi mm-hmm. euh, toujours une fierté et une joie énorme quoi de de m'asseoir avec toi. beaucoup docteur ñu daal di dugg ci waxtaan bi dañu koy doore ak eh, benn feebar boo xam ne si nii eh, liñ koy waxtaanee bëri na bëri na trop daanaka du ñu def eh, émission te waxtaanee wuñ ko muy jabet li tax nag ñu koy waxtaanee mooy ravage yi nga xamante ni mi ngi koy mi ngi koy def. ay nit li ci souffrir te xamuñu fu ñu jëm ñu ngi ci ñu ngi maanaam ñu ngi faju mais daanaka faj ba ñuy faju duñ ci am ay résultats yi nga xamante nii dañu ko dañu koy bëgg yow ñu gis nga ci def ay résultats yu ci ay mooy di faj ay nit yu amoon diabète eh, nga faj leen ba ñu wér péng nga xam ne dañuy dem def seen ay ay ay test ay analyse eh, gis que ni eh, seen seen suukar léegi normal na mais docteur dañu gis ba léegi que yëf yi ni mu waroon a tase des na surtout ci ci ci côté euh, sous régions bi côté euh, international résultats yi ngay def tey war nga mën na nit di jóge fu nekk ci àdduna bi. belle euh, question di ñëw fii tey di di faju ci yow lépp li nga xamante ni moom moo di feebar rawatina diabète. belle question belle question. Mm. je crois même li manqué woon ci sama communication yaa ngi may permettre ma def ko bon hormis que man dama benn problème mm. ci YouTube rek laay waxee. dewuma télé su ma demee télé aussi bon son première sorti ci Sen TV laa ko defee ce n'était même pas une belle sorti parce que la vidéo elle a fait du buzz ci net bi mais bi ñu ko tegee ci télé bi onze minutes la durée alors que la vidéo durait quarante cinq minutes amuloon numéro téléphone donc c'était très mal fait sama deuxième télévision c'était à DTV heure bi ñu koy def du heure audience une heure du matin minuit ba une heure deux heures du matin xam nga kooku quatre-vingt-dix pour cent de la population ñu ngi nelaw te boole ko aussi veille du jour de travail lañ ko def c'était un mercredi su ma mënoon am par exemple une télévision boo xam ne daf may jël ci heure boo xamante ne vraiment heure d'audience la teg ma la peut-être on va rater c'est large quant à beneen télé bu ne fii contacté nañu ay yoon yoon mais télé boobu bëgguma fa dem parce que télé boobu dafa bëri ay fajkat yu fay dem fajkat yëpp parce que da di génne te bëgguma bokk ci loo boobu man defuma tradipraticien seetuma je suis pas dans l'à peu près je suis pas dans fen yi daal bu mënuma ko fi fenkat yi nag di waxee wax dëgg yàlla bëgguma fa waxe moi je suis différent mm-hmm. apprendre waa laisser nag balaa nga xam dëgg da koy jëlal nga fréquenté ma bon diabète aussi parlant de ça lu tax sax tasul ni mu war a tasee benn moment amoon nañ ci vraiment adduna bi yëpp di ñëw am benn waay bu feeñ Kébémer je crois wala ngay Mékhé def fi tuux ki duuna lor ñëpp ma génne communiqué ma ne ko tant que état bi réglul cas kii dootuma fa jëm boobu nag ça a pris du recul léegi kooku il a donné la raison aux médecins modernes ñi nga xamante ne dañ doon ne seen patients yi moytu leen dem ci tradipraticien yi def leen gën a jox raison donc ñooñu encore di gën a méfier wu mais man ma ne leen ci médecin moderne yooyu am na si ñoo xamante ne maa ngi di faj maa ngi faj sax seen professeurs yi leen jàngal ça c'est de un am na ay médecins ma dañoo xam te ne dañ may yónni ay patients de trois am na ay clinique wala ay laboratoire yoo xamante ne man maa ngi yónni ay patients pour des glycémies à jeun ultraveineuses te gis nañ ne bulletin de de d'analyse bi ci man lay jóge ba ci Institut Pasteur man dama leen di bind il y a des machins yoo xamante ni man par exemple su ma fajee nit hépatite B wala ma faj la diabète booy dem defi test xam nga fu la neex dem defi test bi. Mm. léegi par exemple mun nga dem institut Pasteur la plupart man Casa Samba Diéry Diallo sax laay conseiller nit ñi parce que moo gën a moins cher. Mm. comprendre nga. Mm. bon euh, léegi nag y a un autre cas beneen problème man sama faju jabet peut-être les gens n'ont pas bien compris gis nga kii par exemple hépatite B la doon faju mm-hmm. mu def huit mois am mais analyse fan la ko defee du Institut Pasteur gis nga mm-hmm. xam nga Institut Pasteur la ko defee mm-hmm. ñoom fii prescripteur bi c'est kii c'est Diallo Abdoulaye comprendre nga wala parfois ñu def ci cabinet njadiri kii par exemple huit mois la faju hépatite B gis nga norme yi mu war a am yi nit kii war a am ci charge virale am moom norme yi sax de man de ma ne yow loo war a am yow en tant que sax amoo hépatite B li nga war am ñoom moom dafa dem ba lépp inférieur. xam nga kii moom kenn kenn waxatuñu waxam. Mhm. kii moom wér moom wér na. Hmm? Mhm. voilà donc effectivement y a des tradis praticiens am na ñuy naan dañuy fa jafe dañuy fen mënuñu faj jabet dafa am ay système munoo faj nit ki jabet raxasoo biiram parce que butit yi c'est 37 yaar yàlla dafa jël tuuram bi tudd awwalu 37 lay lim mu def ko intestin comme ah, gis nga awwalu karim biiru ndey nit ki mu ngi ci def 270 jours donc adadu karim léegi adadu awwalu la def intestin 37 yaar ce qui fait 36 mètres léegi yow bouteille yi dañ koy vider d' de son sucre boo paree boo amee siti doo wér jabet tubaab xamul siti bu ñu la nee maladi incurable la c' est pas vrai ci ñoom c' incurable mais ño yow tubaab lan moo nekkul incurable ci moom tubaab jabet c' est incurable tubaab tension c' est incurable tubaab hépatite c' est incurable tubaab trompe bouchée c' est incurable tubaab fibrome sax bu ñu la opéré ñu ne c'est incurable tubaab hernie hiatale bu bu ñu ko opéré ñu ne c'est incurable sax faju ko ah ñu ne c'est incurable tubaab boobu metti sax dañ lay bindal garab ne la matin midi soir te ñun boobu métti ci saa si lañ la koy faj tubaab colopathie sax ñu ne c'est incurable te colopathie ñun benn prise ngay jël nga yor li ma fi lim yëpp ñu dañ koy faj naturellement sans effet dañ lay naan rein c'est incurable déglul xam nga musuma ne damay faj rek hmm. mais dafa am ñoo xamante ne dañuy faj insuffisance rénale ak waaw xam nga hmm. dafa am ñoo xamante ne dama leen di faj hépatite B hmm. seen rein yi wéraale léegi ñu xam ne garabu hépatite bi de fajaale rein moo tax léegi ñu commencé di jox gaay yi garab hépatite B pour ñu wér ci rein yi déglul kii j'ai une très bonne nouvelle euh, moo tax ma ne naa la wàccal vocal bi parce que je suis vraiment très fière de toi kontaan naa trop ni nga ma jàppalee ba sama jabet bi dem gis naa ni jàppale nga ma noonu pour la femme. xam nga kii donc fajoon naa ko jabet Amérique la nekk la femme américaine la euh, xam je ne sais pas si tu te rappelles ou pas euh, pour kii amoon problème mu rein yi. donc dem mi ngi doon def traitement yi nga ko joxoon yëpp mi ngi ko doon def nee na benn sachet sax moo ko dese pour mu jeexal mais démb la waroon dem gisi docteur bi parce que pour xool affaire rey toll ndax dañ nekkoon ko woon bu ñëwaatee visite bi normalement dañ koy def mu dem seeti dialysis pour ñuy waaye deret bi. donc dafa waroon commencé ma woo tey ci suba wax ma une très bonne nouvelle mu ne ma Amy guess man dama tiit sa dafa day am problème bi mu ne ma dafa dem seeti docteur docteur bi ne ko qu'est-ce qui s'est passé sa rey yi ça va très bien amutuloo benn problème mu rey même garab bu ñu ko doon jox sax nee na ko nag ko arrêté mu ne ko parce que ça va très bien donc mu ne mu kontaan kontaan na trop wax dëgg yàlla. ba léegi femme bi léegi maa ngi koy faj li ñuy wax thyroïde. léegi moom femme americain bi commencé na traitement thyroïde ñoom thyroïde ñu ne la incurable goitre incurable man daal damaa xamul tubaab loolu lay faj. mais yi ngay wax nii muy insuffisance rénale mais mi ngi def ay ay ay ravages daanaka ñu bëri mii sax amoon naa ay calcul rénal. maa faj sama bopp. man dama doon jël Tramadol du ma nëbb sama bopp mm. Tramadol laa doon jël parce que dama musoon am méttitu bëñ. ma jël ko ma gis journée boobu ma féex di happy di ree rek mm-hmm. sama intérieur neex ma continuer di jël Tramadol quatre ans mun naa naan dix Tramadol par jour xam nga loolu bu yàggee day yàq mm-hmm. mun na la jox sax des maladies cardiovasculaires ma bàyyi ko jël Taledol capsule version yooyu bi ma demee Makka maanaam dama koy bàyyi ma feebar feebar bu bon ma ñëwaat reprendre ko ba un moment ma bàyyi tale doon fekk dafa nekkoon rupture ma jël tedo rapide booba gën a neex ci man nag ma gën nekk à moom laa doon naan cinq ñaari garab ma naan léegi bi moo may calmer j'en prends minimum six ou huit par jour tedo xam loolu day dem bay yàq say bi ma demee defi test effectivement j'ai vu que mes presque te foutus ma faj sama bopp garab hépatite bi laa naan léegi garab hépatite bi nettoyal sama rein effectivement c'est compréhensif parce que fois dafa xaw a rein sax mais du tax ma ne damay faj rein aw ma garab spécifique boo xamante ni bii maa ko jàng étudier ko xam ne day faj mais lii aussi vraiment jusqu'à présent j'ai jamais fait d'étude sur sax mais lii aussi résultat yi nga ciy am bu fekkente ni nit ñi ñu ngi koy ñu ngi lay bàyyi xel. et tey ku am problème mu rein na ñëw jël garabu hépatite B bi pour fajale je te je te dis boobu mënoon par exemple defal vidéo ba ma xam Amérique par exemple ñu yor YouTube comme yow mhm. ñu posé foofu vidéo bi mais c'est fini gisoo ko diwaat dama fa am ay patient mhm. cinq ak quatre heures du matin sama xel dafa ñëw ci benn waay jarbaatu kii la président bi nu mu tudd sax Côte d'Ivoire waaw Alassane jarbaatam ci këram sax la nekk. parce mm-hmm. que moo ko yar. dama ko bind message sax nga ma ne ko est-ce que tu connais là-bas des sites internet genre des gens qui ont YouTube nga xam ne yow da nga may kiyal nga bañ a def sa logo. Mm-hmm. ma yónnee leen vidéo bi. parce que xam naa mm-hmm. Côte d'Ivoire ñoom ñëpp am problème colopathie ak hémorroïde ak arthrose parce que moom day ñëw indi 2 millions 3 millions jënd ay garab pour ay mbokkam. ñi am hernie discale ñi am arthrose ñi am colopathie colopathie mën na ñëw jënd ci 100 sachets yóbbu parce que léegi même ci ñun sax day gis je je la salue au passage une certaine Mariam Diédhiou dafay ñëw jël valeur 2 millions 3 millions am na ñu jógee Suisse ñëw jël garab yu bëree bëri am na ñu jógee xaw ma dëkk bi Japon ñëw ñu fay la 3 millions. bu ñu demee dañu koy jaayaat foofu. non non non non pour leur famille. ah d'accord yow Mahfouz. garabu kolopati boo ko jëlee di ko naanloo sa waa kër kenn dootul jàmbat raxas biir dafa baax ci nit mm. da nga gis benn responsable loolu nag i faut être un un chef de famille qui aime sa famille mm. responsable bu nayul boo xamante ne famille jaral na ko lu ne ñëw ku nekk mu fay la quarante jël quinze mille kolopati ak trente mille city ça fait raxas nga biiru borom raxas nga deretu borom j'ai même déjà un américain boo xamante ne moom day ñëw jël garabu raxas fois raxasu xol raxasu euh, poumon jël laale ko famille lépp te pourtant c'est pas un américain riche mm-hmm. et ça c'est des soins naturels mais Sénégal xam lu ñuy def ñoom booy ñëw boo gisee Sénégal di jël lu bëri rek mooy kiis li neexal xel. Mm-hmm. waaw bu loolu moom mën nga gis responsable de famille ñëw ñëw jëlal jëlal jëlal famille am yëpp ay kiis. ku nekk fayal ko 10 000 bu dee extérieur la 15 000 la ku nekk fa ñu fayal la ñu jël la kiis loolu de moom aay nañ ci waaye pour sañe tout le monde mënuñ ko. mais kon dafa mel ni ni nga waxee nii américains yi yaa ngi wax ay ivoiriens dafa mel ni à l' international ñi ngay commencé di la découvrir voyez mais c' est insuffisant mais des na des na moo tax may naan état bi may leen ma rek ngeen bàyyi ma ci télé yi xam nga c' est loi qui a interdit ça mm. depuis 1993 te man du ma tooñ mm. man du tooñ man boo ma invité woon il faut mu leer ma ne am na foo jaar ba couvrir ma waaw man je suis pas ce gars là j'aurais bien par exemple ñu may am émission TFM wala DSTV wala RTS mais lii c'est un bien pour le pays day yokk koom-koom réew mi nit ñi dañuy jóge extérieur di ñëw di bàyyi fii seen xaalis moo tax ma ne état bi boo leen paree ngeen may ma cinq minutes RFI ak cinq minutes France 24 soo leen ko defee rek tabaxal leen ma cinquante mille hôtels je vais remplir tous billahi maa gën pétrole hmm? Hmm? maa gën pétrole mais yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa euh, loolu yaa ngi dem ci ñoom di leen rapprocher et pour que tamit euh, même su hmm. fekkente ni li ngay wax nii parce que mën nañu dem ba ubbi benn benn benn benn institut wala lu mel ne. non institut pourquoi. wala benn benn cabine. cabine boo xam ne si institut c'est pas la peine parce que je vais jamais apprendre ça aux gens même à mon parce que mm-hmm. lu ci bëri 80 pour cent don la cest à man maa xam yi fi da ngay toog même foofu noonu. da ngay gis nga gis nga salon bi salon bi ñu toog nii. Mm-hmm. mun naa def un mois du ma ci toog. Mm-hmm. du ma fi toog man. sànq laa toog jël Macky Sall face à l'histoire livre bële di bind inna anzalnaahu def ko suumee sànq fii laa toog bind fii j'avais besoin de 18 inna anzalnaahu ma bind ko mais bi ma fi toogee dafa am ay yeneen secret yu ñëw yeneen secret yeneen secret di ñëw donc yooyu man xam naa su ma jàngalee nit loolu ñoom mënuñu am loolu mais Mahfouz bul inquiété wu hmm. le monde sera dans mes mains. <laughs> dama xam li ma ñaan yàlla. te yegg seegul nee naa leen tant que nit binduwul un mois avant de me voir commencé gu hmm? te man xam na li ma ñaan yàlla. sa cabine sa cabine bi ni muy ni muy ma ne la tu un mois un avant de me voir mais problème bi xam nga bane stratégie laa yor. Hmm. ci may faj lépp loo xamante ne peut-être la par exemple saw la su ma fajee dix personnes huit yi dañuy wér wala sept yi dañuy wér trois yi dañuy wér bàyyi naa di ko faj garab yi desoon dama ko doon maye tout ce que je dois faire doit avoir résultat cent pour cent colopathie cent pour cent hémorragie cent pour cent cystite cent pour cent arthrose cent pour cent diabète cent pour cent non diabète na wax dëgg yàlla maa ngi ñëwaat sax si diabète bi parce que c'est la question si. diabète je fais pas 100 pour cent maa ngi si ñëwaat. rhumatisme 100 pour cent polyarthrite rhumatoïde pour cent. hémorroïde. pa moom laa moom moo doon deuxième position bi ma wax colopathie rek hémorroïde laa la drépano SS 100 pour cent AS 100 pour cent alors que tubaab day c'est incurable man je peux te montrer des témoignages ñoo xamante ne maa leen faj drépano hépatite B 100 pour cent 1000 pour cent sax. Mhm. pour cent. alors que tubaab xamu ci daal <laughs> bu ñu am naa ay patients yoo xamante ne bu ñëwee sax di def charge virale bu ñëwee ah avant analyse bi dañuy ree seen patient yi. nan hmm. nga naan faju nga dañuy ree na foo mën a fajoo lii. tu vois parce que effectivement dans leur médecine ça n'existe pas ñoom ay rendez-vous six mois lañ dox mooy cest à donc ñu ngi lay surveiller ci sa dee ñu ngi lay gunge armel. Hmm. yow fii muy nelawee fajuñ ko bu bu yeewoo ñu ngi def. Hmm. duñ ci mën tus. trompe bouchée 100 pour cent kyste 100 pour cent hernie hiatale 100 pour cent ulcère 1000 pour cent te ñoom nuñ ko dañ leen naan loo garab muy calmer infection sax mënuñ ko ñun 1000 pour cent infection yàlla dafa may de barke Seydina Mouhamed yàlla dafa may de mais tamit tantewul liggéey ak euh, euh, euh, les les les hôpitaux. nga xam ne ñëw moo tax. dinañ la mën di envoyer ay patients après. lu benn prostate. Hmm. beaucoup d'urologues m'envoient des gens parce que ñoom ça leur koo xamante ne dañu lay defar sonde depuis deux ans. Hmm. nga dem jaar si jàll bu jox la garab nga fay cinquante nga ñëwaat ci moom ñoom ne dindi sonde bi te yaa aucun effet secondaire ñu gis ne wér nga am na ñoo xamante ne dañoo rafet xol. comprends nga. Mhm. te man nag je je connais un peu quand même l'urologie ci ñoom man xam naa y'a un très bon urologue problème bi toogul fii ci Sénégal dafa am cabinet à Paris du ma tudd turam te je crois que c'est le meilleur urologue même au Sénégal est-ce que du moom rek moom rek sax moo ci xam urologie mais presque toogu fii mhm. comprendre nga prostate par ñoom dañuy may yónnee ay nit diabète dañ may yónnee nit hépatite dañ may yónnee ay nit ça moom hernie discale benn pharmacie la boo fa ñëwee di jënd ceinture dañ lay bindal sama numéro na la demal si Diallo mu faj la hmm. hernie discale kenn opéré ko Diallo ngay ñëw 4 fois 4 semaines nga wér léegi nag diabète pour revenir si diabète man booy jël samay garab bul def test oculaire euh, test test test yi koy def ci baaraam yi waaw waaw boo ko defee waaw boo ko defee rek da ngay garab mhm. ne sax test oculaire la laa bëggoon mhm. garab bi boo ko naanee au début les deux premières semaines day génne suukar bi ci sa chair ci say os ci say veine ci say butit comprendre léegi bu koy génnee genre bouillonnement lay def ti lépp ci baaraam yi lay ñëw nga koy génnee ay saw léegi boo xoolee fi mun machine bi mun na bind 9 grammes wala bind xaay alors que yow en buvant les médicament sentiro to benn douleur ci sa yaram yow sax xam nga ne garab bi baax na ci yow parce que yaa ngi féex da nga koy sentir mhm. léegi comme garab bi ci baaraam yi lay yem bu bu def test yoo koy toppatoo traitement yi rek bu pare man maa lay jox bulletin d' analyse ma ne la demal def test ultraveineuse nga def test bi léegi nag ni may waxee nii gars yi duñ ko dégg day fa jabe rek lañuy ñuy dégg ñoom xamuñu ci audio bi biñ may fi ñu ma gisee nee naa leen bu leen def test bi léegi yow boo ma wooy dooma jot parce que téléphone bi secrétaire yi ñoo ko yor mhm. secrétaire yi xamuñu médecine bi comprendre man comme mes médicaments n'ont aucun effet secondaire man du ma jox mukk nit garab mu gis ci lu ko metti donc ma man urgence soxlaw sama numéro mode d'emploi bi ñu la wax toppatoo ko rek li ma la wax jëfe ko basta lii laa soxla ci yow léegi nag boo ma jotul nga bàyyi hmm. wala laal na bi nga def sa médecin bi dafa la tax kii def la bëggoon rey hmm. fekk yow boo muusee xam nga ne trois jours yi nga commencé naan sama garab sentir toog benn métti ci sa yaram. loolu di nga aussi ci ci ci boo leen di jox garab gi ah? non mais y a du monde. Mm-hmm. garab yi ñoo leen ko war a wax mais tijaan amul njëriñ tijaan jàppale wu amul njëriñ deful nag ni Ismaël li def Ismaël moom sàcc la trial la. client bu ñëw mu ne la colopathie bi la koy joxee am am boo demee nga yónni ma 10000 yooyu la doon njëriñ ci bureau yi. Hmm. actuellement j'ai huit plaintes sur mon yi ñi nga xamante ne daf lan lor parce que bu naree sàcc garab ngay faj hépatite 50000 jotul sàcc garab hépatite bi jeex na te moom dafa yaakaar nga koy jox quarante 40000 parce que 50000 mu ne la yow 40000 gis nga gars ni ñu bëggee lu yomb. Hmm, hmm, léegi ngoon la la promesse na la indil garab bi garab beneen garab la sàcc peut-être cité bi la sàcc. moo tax ñenn ñi parfois naan si audio yi damay dégg ñu naan garab bi nga ma jox mois bi ak mois bale bokkul fekk xamuñu ci doomeram bi lañ jaar Ismaël moo leen triyande comme moo doon ubbi kër gi man may ñëw deux heures temps après day fekk clients yu bëri sax renvoyé na leen hmm. def nag ñoom dil bind na seen tur jël seen numéro doomeraam bi dañ doon nekk ci oto bi téléphone bi cak cak cak cak rek ndekete yoo ci sama kaw rek la doon jaar du ci am lu muy dooree moromam de bu soobee yàlla mm-hmm. te xam naa ne prison lay mujjee li ko sauvé tuuti histoire de famille la waaw mm-hmm. muy Ismaël kooku doon fen di naan sama rakk la bokkuñu dara lii la sant Diallo laa sant mm-hmm. bokkuñu tous mais on est du même canal papa ak sama papa nag nekk ay xarit nekk ay wëllëre papam dafa fekk sama papa ne commerçant dépense kër yëpp sama loxo papa la jaar ba nii nii nii sama papa defatul commerce seen dépense kër muy sama loxo rek bi may njëkk gas ay forage seen bunt kër laa njëkkee gas forage dafa ram couleur bu fa nekk magam muy sama àndandoo comprendre nga mm. ma noonu léegi nag imbécile bi dem sax ba sama meilleur xarit doomam la takk bien que defaguñu mariage bi xam ko bu bu na ko def dara mais xam naa li muy def dina ci jour te da doon yàq sama der sax dinaan gars yi xamu ki waa ji day am xaalis ñun une une paie mal yow ngay fayeeku am trois jours de repos trois jours de repos yi dañ la koy fay ngay lekk dinaan loger douche bi ngay saw sax mënoo ko raxas fi muy puubee sax mënul tiré chasse maa ñëw tiréel ko salte la def maa la jàngal sax cet comme téléphone bureau yi ñoom ñoo ko doon yor dafa sàcc saa yu néew téléphone ñu bëree bëree bëree bëree bëree ñu dil xaalis noonu lañ koy amee ci njublan médecine noonu lañ koy mënee médecine lañ koy jàng barke sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xamul benn garab nu mu tudd barke alxuraan barke alxuraan. parce que yow doo ko jàngale tamit ah. non du léegi nag xam naa ne il te été un peu quand ak ñi may defaral garab yi ñiy conditionné garab yi. Hmm. waaw foofu lay jaar muy dil ak ñooñu te man kom foofu man awma temps dem fenn. et je peux pas contrôler ces ces man su may gisee nga nekk ci yoon bu jubul dama lay bàyyi parce que tôt ou tard di nga dugg ci pano bi waaw ah, man man yooyu ça me dérange pas moom xam na ne mënul wàññi ci man dara man tekki na moom du mës tekki moom moom il ma connaît parce que xam na moom xam na képp ku ma nee dootoo ne alhamdulilah dootoo ne alhamdulilah moom dootul wax alhamdulilah ilaa yawmi diin te ko képp ku ko jàppale sax dootoo wax alhamdulilah moom il ma connaît très il sait que si c'est du mysticisme je suis plus mystique que quiconque te bu dee jub ak sa borom moom xam ne juboon ak sama borom te maay référence am bu dee am ne benn idole ni man la bëgg a mel day wax ak magam yi sax ne man faale ma leen jàllo rek laa faale ni moom laa bëgg mel ah parce que seen mag yi nag ñoo doon fowandoo ah <laughs> te fi ma leen rawee dafa bëri dafa sax kawe gëm sama bopp hmm. donc revenant ci jabet bi hmm, te képp ku am siti doo wér ci ci traitement diabète il faut nga faj fajuwaale siti bi mun nga dem ba diabète bi yàq sa pancréas avant dama doon xër di la jox garabu diabète di la jox garabu pancréas ndekete loolu du faj sa jabet mm-hmm. il faut nga faj diabète bi ba sucre bi jeex ma defaraatal la sa pancréas léegi nag képp koo xam ne faj naa la ba nga pare ay waay ngalla bul bu ngalla waay bul bul bul nay cinquante mille rek ngay fay di renouveler sa pancréas loolu dafa cher hmm. mu ngi mel gis nga américain yi da ngay nekk mili milliardaire nga am cent quinze ans wala quatre vingt ans nga dem jënd benn organe benn cœur à des milliards hmm. nga opéré nga changé sa cœur pour vivre longtemps yéen ne am koo xamante ne sa sachet garab la lay jox nga naan sa tu renouvelles ton cœur cinquante mille loolu jaru ko hmm. xam nga tey sénégalais li ñu ay sëñ Mahfouz hmm. cat cat moom li ma ciy joxe par jour kenn xamul parce que léegi gars yi gis nga hmm. booy def lu baax rek day siw hmm. ñëpp xam nañ ne bu dee sang maa daq sang ci adduna bi man nag dama sang sama bopp tekki am doog a tekki loolu nit ñi de waaw loolu la xel mën a nangu sax waaw genre yow nooy demee ci sëriñ solo lu baax amul kër fi mu nekk dafa loué amul oto bu baax tojul fenn ci matelas lay toog amul sax fauteuil bu baax naan la dalee may alal dalee sanga alal bu lee baab di naan xaw ma man euh, bëgguma àdduna day duul moo gën a bëgg àdduna yóbbu fa sa jawar nga xool da koy doxaan hmm. balaa ngaa denc nit sang ma kay est que moom référence la d'abord man de sëriñ yi sax lay sàng billahi wallahi taala wal kitab ay nit yu populaire ay sëriñ yoo xamante ne ay taalibe ñu ngi daw seen ginaaw ñoom lay sàng cat ñoom lay ñoom ñoo daq commandé bain de richesse bi je te jure devant Dieu barki ay secret ñoo ma daq ñaan secret xaalis waaye ah, mm. ah, waaye man moom secret da ngay fay. waaw man boo ñëwoon tey sëñ Mahfouz nga ne ma benn richesse laa bëgg trois cent cinquante nga teg ko dem leen naan non mon frère jëlal benn cat bi trente cinq mille defaral sa yaram d'abord mon frère xale mm. de defar yaramam ci naa pas te soo sangoo cat bi bu dee garab bi dëgg la kay boo ko sangoo même avant sept jours yi di mot da ngay gis changement mm-hmm. soo gisee changement dóoral waar ba ci kanam nga demee ndànk bâtiment kenn du ko tabax ci benn fan même si tu tout le matériel dama lay conseiller di ngay gis automatiquement da ngay nangu conseil parce que yaa xam ne kii li muy def dafee ko xaalis ngir jàppale lay jàppale bu doon xaalis rek ma jël sama 350 000 et surtout <laughs> garab boobu dikkiwu ma dërëm maanaam dépense aussi dara bi ma lay joxee 350 000 avant dama doon jënd kaas bi 3 millions kaas bi kaasu ataaya ba mu fees garab bi 3 léegi je n'achète rien am naa accès ci garab bi pa bi ko doon kii ray dee na pa boobu dafa dafa kii woon rek naan moom rek moom moom garab bi fii këram la mu def clôture et tout ça léegi pa boobu dee na man xam naa ni may demee ba jël ci garab bi mais garab bu naqaree jël la parce que il faut nga jël euh, diw ñor nga diwoo ko moo tax ngay gis temps yi may ñuul mm-hmm. diw ñor ngay diwoo boo diwoo diw ñor nga nga taatu nen te danga koy wooral benn bés xam nga man moom koor sama xarit mm-hmm. man damay lexal soixante mille soixante mille laay génne rek bañ woor garab yi il faut par exemple jeudi lañ koy dindi mercredi soir ngay dem mm-hmm. diw ñor boobu nga def sa yaram da nga koy def ci garab bi léegi la lendemain boo fa fekkee ay fourmis yu dijj mun nga ko jël bu dee ay formes yu ndaw bul jël comprendre waaw léegi fourme yu dijj yi ñoo lay won ne que waa ji ay pënkal lay lay jëflantal ay pënkal ñoo koy indil xaalis mhm. moo tax bu ñoo gën a bëgg pour ñuy tëdd rek gars yi di leen indil xaalis mhm. comprendre nga waaw wala bu dee commerçant nga dangay gis dangay am ay fournisseur man je peux donner des témoignages des Gambiens ñoo xam ñi nekk Gambie par exemple ay commerçant ay four kenn ki sax ndeysaan ci tremblement de bi la fournisseur am gaañu dafa sangoo rek amaat yenn fournisseur mm-hmm. da nga am fournisseur mun nga dem Chine di jënd bagage rek nga gis foofu benn commerçant ne la il va donner valeur de deux cent millions wala trois cent millions boo jaay indi ko xaalis mm-hmm. garab yi noonu lay maye xaalis quoi wala par chance nga joué xbet wala nga joué euro million nga gagné mais xaalis moom di ko am mais bu ma laaj nag combien combien de temps ça va durer boo ma sax parce que léegi whatsapp 959 bi man maa ko yore mhm. boo ma laajee yenn questions yi ñàkk fay yi du ma la tontu benn waay bu ne ñaar durée bi ñaata la démb laa déglu message paale ma ndeyam sax ay man may ñaan nga may naan app yàlla mhm. y a des choses quand il faut être bête même pour poser ces questions mu ngi mel ni maa ngi expliqué sànq benn waay ni ñuy jëlee garabu hémorroïde bi ma wax ko raxas biir bi wax ko hémorroïde bi ni mu koy jëlee ba pare mooy naan ban heure lay jël garabu raxas biir bi yow nee dèjà nee naa la boo ko jëlee sa biir day daw léegi yow man maa xam sa temps maa xam looy liggéey man maa lay wax ban heure ngay naan sa garab imbécile bi si ma la nee huit heures fekk danga war a xëy nag xoolal question yu bête yooyu est-ce que ça c'est question mm. léegi boo tontu ñu tontu y a des questions mais je réponds pas c'est que téléphone dafa yomb à tel point que xamuñ sax li koy utiliser te da ngaa kenn soxlul sa numéro bi amoo kenn koy waxtaanal ñu ci crois que te 45 minutes envoyé la daam foo toj man ma la yónni lii nga fone yow jot bi nga am ak ñàkk jom bi nga ñàkk jom nga fone man am naa am naa jot boobu fi ngay bind message y a 80 000 messages qui attendent j'ai wala ñoo xamante ne dañ lay bind asalaamaaleykum na ngeen def naka njaboot gi naka yaram bi macha allah tabaarakalla tout ça pourquoi loolu mooy lan sax nuyu yooyu ça veut dire quoi ça est-ce que lii nuyu la naka njaboot gi da ko la ne dama am naka yaram bi dama laa ne dama feebar dañ leen ne sax naka taw feex bi xoolal naka taw feex bi luy naka taw feex mais yitte la rek yitte ci lan asalaamaaleykum point asalaamaaleykum day na sakkan na ni ko ci sëriñ Xalifa Ñas di waxee nuyoo bu gën a sakkan ci nuyu yi asalaamaaleykum boo ma ne salaamaaleykum du ma la tontu hmm. ñëwul bureau ba ne ma la tontu hmm. sa soxla asalaamualeykum da ngay dëkk da ngay indi a bi mm-hmm. waa kay ma tontu la salaamaaleykum salaamaaleykum day nuyoo mm-hmm. salaamaaleykum xam nga lu muy tekki mm-hmm. lu bon la salaamun aleykum sax aleykum mais salaamaaleykum am ñoo xam ne dañ ne alhamdulilah alhamdulilah xoolal alhamdulilah noonu la ñuy waxee alhamdulilah alhamdulilah ash ñoo ñuy def ci KH alhamdulilah te xamuñ dañoo yàq. ñuy modifier sens bi. te li ñu wax loolu dafa xaraam te bu ñu xamal ne ci alhamdulilah nañ ko prononcé comme il le faut alhamdulilah dosé alhamdulilah ñàkk jom. jërëjëf docteur. y des choses il faut quand même que ni hmm. ah, nit ñi ñu xoolal seen bopp temps bi nga am ni ñi amuñu temps boobu li nga def téléphone nit ñi amuñu temps téléphone boobu ñu mën naa des téléphones depuis bi ñuy naan nii. nga woo poste déedéet du sax automatique bi dafa amoon yoo xamante muy am cercle bi am na dafa am beneen boo xam ne levier la am ah, nii nga def gurr poste lay sonné bu sonné poste jël la nga ne ko ma Dakar wala passe ma numéro mu dugal fusible bu dugalee fusible am na auto moom moom poste bi yor téléphone automatique bi bu am chiffre yi un mu mu def nii passe la ko débranché fiir bi nga nga jokk borom. comprend mm. parce que y' trois systèmes ci téléphone. boo paree ci boobu bi ñu paree ci boobu automatique ñëw mm. ñu am ko portal yi GSM la am nañ ko depuis bi mu nekkee AMS nga xamante ne abonnement ngay am mm. nga utiliser ko xam nga donc yàgg nañ ci téléphone on n'a pas attendu pièce fi muy jaree 1000 francs ak téléphone fu mu gën a yombee di am téléphone léegi même ginaar yi am nañ téléphone dafa am day xoolal heure timis yow yaa ngi toog sa kër on est dans Dakar yow yaa ngi gis nodd ngay woon nit nga naan jullit nga yow xamoon ne en islam on n'appelle pas quelqu'un après fajar on n'entre chez lui tant naaj bi jógul vous appelez les gens à 6 heures du matin 5 heures du boo soxlaa adresse mais mu ngi fi nga jëlee numéro bi ci vidéo bi ñëpp xam nañ ne Petit Mbao ngay ñëw entrée Petit Mbao am na calando calando boo jël nga nekk ko docteur Abdoulaye Diallo ci mango yi samedi dimanche lundi la ñuy liggéey dafa jar ngay woote di ma déranger xamoo sax ni ma yeewoo si je de bonne humeur ou pas yow ni nga yeewoo ba sawar ba nekk ci yoon bi kii léegi la yeewu secrétaire bi nit la mm-hmm. secrétaire yi bokk ay nit lañu ay jigéen lañu dañoo soxla seen bopp te dañoo am ay doom amuñu sa jot bi nga am tisbaar ku ci woon it ci l'islam xam nga ça n'existe pas vingt-deux heures l'islam tere na ko ñoom xamuñ ne l'islam dafa tëral yooyu yëpp donc nit kii bu la bañee recevoir ci heure yooyu xamal ne moom moo nekk ci dëgg yow nangul la yow yaa nekk ci toor te duñu xam ne ci toor lañu nekk ce ce pays là a besoin d'une rééducation moo tax président bii di ñëw nañ dem d' abord moom soxluñu économie. Hmm. Hmm, hmm. on n'a pas besoin de kuy defar jikko yi kuy defar jikko yi lañ soxla. pays bi wane est dans un pays très impoli très irrespectueux. li baaxul. et puis franchement s'il faut ñu dindi internet ñu dindi ko. parce que y' a un danger sëñ Mahfouz. xale yëpp léegi am téléphone. man dama décroché sama wifi à cause de ma fi de 11 ans ci téléphone rek la nekk wifi dama dindi wifi bi léegi nag ma xool fan lay amee connexion léegi yow xale yi yëpp connexion léegi li ñuy jàng dans vingt ans kan moo yor réew mi mhm. donc il faut ñu xoolaat loolu xaw ma benn nijaam de moo ko jëndal téléphone xam nga bu dee man moom du ma ko jëndal téléphone te gis nga sax fi ma jógee ci émission bi pilon laay ut léegi léegi ma dëbb téléphone bi c'est ce que je vais faire doo ko denc rek ba mu soxla day tët bu soxlaa téléphone mun naa ko jëndal téléphone bii sax nee na ma yaa moo ko jox iPhone 6 xaw ko iPhone 6 yu yàgg yàgg yàgg yàgg yooyu la ko jox 11 ans ngay jàngal sa doom am téléphone ñu ne adduna bi toll foofu la. adduna. adduna ah, tollul foofu adduna nga déedéet 11 ans hmm, moo tax di xale gis nga am na ñu am 18 ans waruñu téléphone am na ñu am 25 ans waruñu yor téléphone yoo xamoo góor mu ngi Europe imbécile bi parce que rek Europe la nekk mu ngi ut jabar yoo xamoo sax ndax da lay fen doxaal la ci Facebook mosoo ko gis xamoo sax këram xamoo sax lu muy am par mois hmm? yoo xam nga ne xam nga ne góor moom. booy dugg ci moom na leer na kii mun na jox dépense bu doy hmm. xam nga 10 000 francs moom dundul kenn tey par hmm. jour 10 hmm. 000 francs c'est trop yow nga ne comme yow jeeg nga kay wala yow moom xale bu bu nekk ci ci tànga yow utul au moins quand bu lay jox 10 000 minimum par jour sa ndekki sa añ na mot sa reer na mot léegi moom li muy fay gu matul 300000 nga naan da nga ciy dugg xam nga lool nga sa bopp léegi mu nekk Europe yow xamoo ko daal ci moom bébé nga ne wuy semaine ñuy ñi ñi ñi ñi ñi ñi appel vidéo parce rek nga ne nii nga gën ko woon dënn bi ah nga def ay technique wax ak moom tuuti yóbbu xel bi nga ne ko wàcceel caméra bi ci suuf nga nekk fi doo meraan bi mm-hmm. di wane sa taat léegi am bagay kii ne la soxna la bëgg yow tu te présentes en caga du la takk de. du la takk da buy ñëwaat yow yaa koy tëri ji aéroport bu terminé sali xam ne li ngay saf xam ne doo nit xam ne amoo yar xam ne amoo benn valeur fu mu lay takkee iPhone bu mu la diggoon doo jot dara day naan valise bi mu ngi aéroport da di yow suba midi moom am na fu lu muy am ba pare ne la maa ngi dem jël sa bagage doo toog a gis boo moytu sax yaay fay néeg bi mm. midi da ngay rek homme de chambre bi ñuy fëgg ne seen heure jot na et puis si le Mali va faire exprès de ne pas avoir un numéro Sénégal comme ça doo ko jot nga yàq sa life est-ce que kooku war na am téléphone nga naan léegi adduna bi noonu la toll ndaw ndaw adduna bu bon am ñu am 30 ans waruñu jigéen dafa war valoriser boppam yàlla moo moo valoriser jigéen léegi boo waxee nag ñu ne Diallo waxati na ci jigéen ñi alors dama leen di yee rek dama leen di yee rek mhm. pourquoi léegi un homme couche une femme aussi que tu ne comptes pas marier pourquoi mhm. bu ñu ko defoon sa sœur nag jigéen boo xam ne kay moomoo ko takkoo ko naroo ko takk xam nga ne jabaru jàmbur la même si elle n'est pas mariée même si elle est célibataire jabaru jàmbur la looy jël ji alalu jàmbur donc y a beaucoup jikko yi dañu war a defaraat ñun ñëpp nag commençons par même moi je suis un donc il faut ñu xoolaat jikko yi man xam nga dans les années 2008 bi may xam bi may dugg ci Facebook damaa tardé dugg ci Facebook nag di ma jógee Gabon ñaar Sénégal laa dugg ci Facebook amoon naa lu ma dix page dina xale yu jigéen rek barke Seydina Mohamed neuf yëpp ay photo jigéen a ci nekkoon di incarné lu ma nekkul billaahi hmm. yooyu maa ko bàyyi man maa ngi fen daal maa ngi ko bàyyi définitivement en 2016 fen ak lakk lu lewul <laughs> non mais c'est vrai yëfu imbécile yooyu. 2016 hmm. laa ko bàyyi. lii te dama ci gaawoon jàpp jigéen. tu vois la fille le lendemain elle vient chez toi da ngay ubbi buntu bi rek tëdd moom. même pas de nuyoo ñoo yomb. non internet dafa yàq dafa yàq lu bëri. tu peux voir une fille coucher dix hommes par jour à cause d'internet. yow temps xale yow bi ñu nekk bi téléphone amul boo doon bind sa gel note ngay def. nga yónni benn xale bu taxaw ci buntu kër gi timis di xaar bi mu génn pour dem boutique bi jox ko ko. léegi da ngay nekk ak sa gel beneen gaañ bi mu xam ci Facebook bi mu ngi ko jox rendez-vous midi. Mm. mu jógee foofu midi beneen gaañ baa ngi ko jox rendez bu quinze h beneen gaañ baa ngi ko jox 18 lii yëpp dafa bëgg a dajale mu jëndee cheveux naturel cheveux naturel mooy lan. Mm. lu yàlla araamal. cheveux naturel mooy lan karaw jigéen bu mel ni yow cheveux naturel mooy an mooy lan mooy karaw boo xamante ne musul sangu janaaba yooyu yaa ngi jaay sa bopp ngir loo xamante ne yàlla bëgg ko yent bi bëgg ko sa diine bëgg ko boo ko solee sax yow doo am doo am sax julli ah xoolal rek xoolal rek mirage boobu ngay topp hmm. lu ko fi jar am na ay jigéen billahi àla minute où je parle xam nañ ne lépp lu ñuy regretter seen àdduna ci seen téléphone la jógee léegi lu tax doo te da nga gën di yàq sa àdduna di gën a regretter ba pare di gën a ut nag ci téléphone bu gën a cher lu ko fi jar lu ko fi jar est-ce que waruñu tëggaat suñu bopp est-ce que waruñu xoolaat suñu bopp à l'intérêt de qui de chacun d'entre nous melal lu baax sa bopp rek ngay njëriñ melal lu baax mm-hmm. man lii li ma wax fii sa pas pour mooy nga ñay jigéen de c'est pour may gën a ubbi seen gët parce que dama ci jaar jaar naa fi ñuy naxee jigéen ak maa munoon naxee laa ilaha illallah dama amoon système bu garaaw ban la ma ne la dangay wax ak jigéen fekk man mii ngay waxal ma ubbi quatre pages Facebook wala neuf mais nag mënuma ubbindoo ñëpp ci sama ordinateur. Hmm. mais dina ubbi benn page boo xam ne fii yow laay waxal en tant que jigéen. Hmm. fii man léegi nga may tontu fii may tontu fee. di changer nag ni may bindee. Hmm. fee majorité <laughs> féministe non mais c'est n'importe quoi. wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa aleykum wa